kan siyatul kunóos jaaraama gërëm nañ la baay yaa tere de ci naasoot Sidi Baar amma xam ngeen sëriñ waaye xamu ko xam na lum leen liir ba xoori lan waari moo doon Sidi Baar amma xam ngeen sëriñ waaye xamu ko xam na lum leen yiir xoori lan waari moo di sidi baar amma bu xoori lan waari miiroose mol koog malakoot raakol bang mu poose soodaan sidi baar amma bu xoori lan waari miiroose mol koog malakoot raakol bang mu poose soodaan Sidi Baar amma nguur gi xamal mboolem asamaan yeeg suufi juróom-ñaar raakool bang mu poose soodaan Sidi amma nguur gi xamal nguur ak Daqiyaanus faa fekk ba ca Room ministre bi ñëw na soodaan Sidi amma nguur gi xamal nguur ak Daqiyaanus fa fekk ba ca minister bi ñew na Soodaan Sidi bar amma nguur gi xamal nguur ak Daqiyanus fa fekk ba ca minister bi ñew na Soodaan Sidi bar amma baqaabin rayeexaabin barxaama nangu woon ngànnaay la mol bu mag bi tam ngay mbal Sidi bar amma ba min la e obin bal hama nangu woon la mool bu mag bi tam ngay mbaal sidi baar amma doji volcan képp ku ca dem e mu ci mbiram yàlla yëngu géej ga doy na kéemaan sidi baar amma doji volcan képp ku ca dem e mu ci mbiram yàlla barxaama nga fa garde kéemaan sidi baar amma la cay yëngoo ca biir doj waag saxaar sa fiile sirru baa nga bawoo malakoot si di baar nasaraan bee gën a rey xaatir te bari lu muy jeex dafay mustu seeti volcan si di nasaraan bee gën a xaatir te bari lu muy jeex dafay mustu seeti volcan si di baar sa ndongo ya doon gàddaay nguur ak Daqiyaanus aji perte yàgg nay bañ Sidi Baar Ama Barhama sa ndongo ya doon gàddaay nguur ak Daqiyaanus aji perte yàgg nay bañ Sidi Baar Ama Daqiyaanus teg na leen service di leen bugal lool gaaña mer ba génn gàddaay Sidi Baar Ama gaaña mer ba génn gàddaay tàbbi ci àllub rumba toog di jaamu yàlla ak yónneen Sidi Baar Amma romboon nañ fa jaamab naar buy sàmmi xaram la woon jàmba ne leen xana ngeen jëm gaa yi Baar Amma gaa ñaan ko naan dañoo bëgg a gàddaay tey ñu génn Róom tey ñu faral yàlla ak yónneen Sidi Baar Amma jaamab naar ba ne leen ma ndax ma xànd ak yéen ñi faral yàlla yónneen sidi bar amma de daldi handando gaday topp halub rumba tapi cimkan di jamu yalla sidi bar amma gaaña nalaw nañu ñetti téméré had yu tek ci bir kan ma tok di jamu yalla yonen sidi bar amma garab ga nekkon ci buntu kan ma doyna émé yalla garab ga nga waw bagasat sidi bar amma gaaña nalaw nañu wallaayi gëj naa ne nalaw yi ndax nalaw laa moom Sidi Baar amaaka ci dom ak ne wallaayi yéemu naa ci yàlla nelaw yi ndax nalaw laa moom Sidi Baar gaaña daldi xàndandoo génn kan ma toppum àllub ruum ba ba ci manding ma di jaamu Sidi Baar amaa leen daan doktoore waxtu suba ngoon bawoo lopitaali malakoot sidi barama bañu demee saaraan nara sanku barama ñu woo jox ñu kurus ta naan werdal sidi barama xamal ñu kuy yàlla yow moo gën di làmbatuy wey boo ko defee danga ko réccul nooni barama dellul ca jàkka ja yow maj soppi taroy ci lislaam jàppal jullil werdul asim sidi barama noonu nga koy defee xam yàlla te xammi iblis xammi borom mbir mi samdaan xammi barxama fekkin nga xam ndigal la mu làmboo moo di sekkereem ndigal la nga bawoo péyëp si di barxama yëral ilaaha bi ay nil xal bi baatina tan xoolal ma baatin ba danga naan moo di baarama baay maamur yow ñoo ngi lay ñaanal ci baaxu barxaama fan wu guddeeg wér gu yaramoo gëm nga barxaama baay maamur Jóob ñoo ngi lay ñaanal ci baaxu barxaama yal na yàlla may la daraja yi sidi barxaama baay maamur yow ñoo ngi lay ñaanal ci baaxu barxaam yal na yàlla may la xaalab sidi barxaama Si Karlen, xeete abu jaal si bañ sidi ama kaptal du tax domi lëg mat bu len tang bay yag ngeen fi xamuñ yàlla sidi barxama ku man da danel wer wi ak jant bi dox ci kaw asamaan mënuloo tee mbindee sidi barhama sama waji ya di mambulan yaa ñu nandal ay nu tasmiir ay nu barxama yaawal maam aadama ay mbootam ba muy ay dinaaw baat yam doon jéggaloo buur ba si di barxama ba yaawal maam aadama abul blambiyaay baat yam doon jéggaloo buur ba si di barxama yaawal suleymaan ay mbootam ba muy xëy dinaaw moo ki jinneeg njanaaw yi wey sidi baar amaa xoolal baayam ba daawuda ak nekk baat ba mu àndaloon làmmiñ wa ko suukar baay la sidi baar eesa mi doon dekkal wey deey ci mbooti barxaama la doon jële mbooti doktoor gëm na barxaama eesa mi doon dekkal wey deey ci mbooti barxaam la daan jële mbooti doktoor gëm na barxaama kon da de ne nañ la suñu waji ya fi ñoon daaw mason nga fi ñewi daaw jeek sidi barama sambu mi nga sol bokul ak moma bu moma gëna wex wex mom nga solon xatam daaw jeek sidi amma ren ji nga ñew sol sambu mi ni buris bi gaaya reer di lamba tuy wey sidi yoni faydu ku koy di ngat bam jaral la gàddaay sabul te dem ba xam mën nga génn ba